combat Babou Sarr baa ngi noonu ci digg géew gi arbitre baa ngi wax ak ñoom ndax bi nekk premier joof yor mbooru la bokk doomu ndey Ibou Ndiaye booleeg Doudou Sané Babou Sarr à gauche Général à ngi si kawam Babou Sarr ndaamal daaru bu jëf yoro Général ñu ngay lewaatoo ku ne ngi jiital sa tànk ndeyjoor Général na xeex ndaamala ndeysaan di bëgg waa Diofior yëpp waa Daaru fala baay fala bàyyee ko moom Babou Sarr jàpp na tànk Babou Babou génn na ko général génn na supporteur yaa ngay yëgal Babou dafa mobilisé waaw général de l'avertissement arbitre waat na Babou Sarr Zerra jëlaat na tànk ba Babou Sarr li nga may ci tànk bi mbaa bëriwul arbitre boo toogoon mu gën a neex ndeysaan Assane Diouf borom Ndianda Assane maa lay bëggee Babou Sarr am na ngemb songole Babou Sarr daan na ko loolu xëy na la Babou Sarr soxna ko daan ko day yëngal day yëngal waaw waaw eh, Babou Sarr jëlal ma li mu indi ci mbooloo jëlal ma li mu indi ci mbooloo moom Daamal Daaru quelle mobilisation